yaakaar en 2022 ngeen commencé def suppu kànje dalal ñëpp ñëw ci ngeen commencé am ay problème <laughs> coalition commencé essoufflé wu euh, ngeen mais difficilement les élections yi amoon muy locale muy législative mm-hmm. tey jii en 2024 war a songu la vous avez un candidat bu porté euh, drapeau Benno Bokk Yaakaar mais malheureusement ci li ñuy gis ci li ñuy wax ce candidat il il il peine à mm-hmm. les les les les électeurs c'est quoi le problème Benno Bokk Yaakaar qui ex-maturité comme ni ñu ko waxee essoufflé déclin. qu'est-ce qu'il explique vous avez vu euh, mon candidat à Mbacké hier. si mais loolu. Ah oui loolu on peut pas dire qu'il ne draine pas des foules. loolu nax na Abdoulaye Wade en 2012 attendez non vous dites qu'on ne draine pas des foules je veux effacer ça ce coow li bëri na ci yéen. non dama ne malheureusement négativement. exemple boobu dama ko jël pour effacer li nga on ne draine pas des foules. Mm. Benno Bokk Yaakaar est une machine. aujourd'hui d'accord naa ak yow il faut quand même. Euh, une unité qui qui qui qui, qui n'est pas ce qu'elle doit être mhm. une implication des responsables voilà, euh, des voilà qui qui ne sont et, d'ailleurs la politique mooy li ngeen wax il faudrait que progressivement parce que les gens euh, s'identifient trop à un homme mhm. ça pose problème au plus s'identifier à un projet loo bëgg wax transition Wade Amadou ça ne passe pas Wade. Macky euh, pas Wade Macky Amadou. parce que benn boo koy identifié à à Macky Sall ba tey sax moom la ñuy wax. tey da ngeen am candidat non je parle des responsables aujourd'hui qui ne s'impliquent pas xam nga tey bu Alioune Ndoye impliqué wul. oui toute une base taxaw. y a problème. il y a un problème maintenant comme je dis euh, euh, Benno c'est une machine qui quand elle se met en marche je vous assure que <laughs> c'est autre chose. mais bi marche bi yéex na de. non depuis ngeen choisir Ba tey eh, fii. non yow loolu peut-être euh, gisin la. man ban lecture nga ciy a beaucoup de fakes ah. oui allez-y beaucoup beaucoup ah. Amadou day am programme sax nga gis gars yi dóor ci réseau yëpp naan c'est annulé machin fekk dara nekk. te seen biir lay jógee. ah loolu man ma xaw ma ko parce que xaw ma <laughs> man xaw ma koy diffuser. mais par contre Chimiste vous êtes d'accord qu'il y a plein de problèmes au, niveau de Benno même parce qu'on voit euh, des hommes yoo xamante ne très proches euh, du président qui fustigent carrément sur euh, le candidat Amadou Ba. oui bon mais mais ça euh, peut-être c'est un mal qu'on a traîné ça fait longtemps ça a mhm. existé à toutes nos élections mhm. loolu feeñul ci Amadou Ba de élections yi fi jaar yëpp benno vous avez eu ça muy local muy et cetera y a eu les listes parallèles y a eu tout ça. mais tant c'était Macky Sall non je veux dire dékku na ko. opposé na ko. voilà euh, une organisation et cetera donc du lu bees ci Amadou Ba donc bu ñu ko ko askanal.